mës a bëgg boppam mës sa respecté boppam. mës a bëgg li muy def. daanaa ko ni chaque fois bu ma la xoolee sama xel day dem ci kii mooy Youssou Ndour bu jigéen. potentialité vocale yi nga xam ne sunu mag yi am na ko Youssou Ndour moom mii am na ko. macha allah ci mën a woy. macha allah xam tem titre lu mu génn it la. Mhm. lu mu génn it la. Mhm. moom foo ko gis mi ngi tëju. mi ngi xool ay harmonie. di xool gaam. elle musicale. yàlla na nga eggal ak jàmm ci barkeb Serigne Sall. loolu rafet na je suis très fier de toi. macha allah Salam Diallo euh, yow moom lii nañ la xamee. Euh, Titi dama lay invité nga ñëw toog fii en attendant parce que ki nga xamante ne nag euh, mooy Astou dem na seeti abbé Jacques Seck abbé bi nga xamante ni.